li ci yéen kaay yi. li ci yéen kaay yi. El Hadji dale na jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo jamono ji nag àtte Lamine Diack dinañu ko amal ci réewum France la tribune yéen kaay yi duñu xamale ko àtte fekk jamono ji papaam di Lamine Diack boo moytul kay danañ ko sànk mooy tuuma yi nga xam ne jot nañ koo yëkkati daal di koy dal ci ak ndoddam dañu koo bëgg a dugal ngir ak complot yéen gi duñu xamal ne loole kay boo moytul dina ko dal moom Lamine Diack ndax ay atam toll na ci juróom-ñett fukk juróom-ñaar tey nag jamono ji dafa yéenekaay xamal ne lépp loo xam ne rek jëm na ci njiitu àttekat yi nee ma Souleymane moom nag jamono ji woon nañ ko ci wàllu yoon ngir di ko déglu fekk nag magistrat yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci réewum Sénégal di ñaawlu noonu nga xam ne rek doxalee nañ ak Souleymane Teliko di xam ne ne loolee kay duñu ko nangu fekk jamono joojee 24 heures yéenekaay bi dinu xamal ne kay jamono ji nag réewum Sénégal ak lépp loo xam ne rek jëm na ci xeex li nga continuer di yab la nga xam ne rek moom lañ doon def la ñuy kay jamono ji muy ñàkk sol masque yéene gi duñu xamale boobu moytuwul nag jàngoroy covid gi dina gën farara gi duñu xamal ne nga xam ne rek ñoo nekkee ci mbënd waaye nag yàq lu mel ni xame ñi nga xam xam ne rek ñoo di état bu Sénégal na nga xam ne rek noonu la ñuy doxale ci wàllu mbënd meeg yu mel lu jig njaaga mooy njaag Les Échos yéen kaay du ñu xamal ne moomee kay jamono ji jaaxal mi ak ndox mi daanaka taw ba ngelaw li jot na koo daane maanaam daal mooy bilan bi nga xam ne rek jaaxal na ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal fekk jamono jojee Ousmane Sonko ak ki nga xam ne rek moo di Bougane Gueye Dany Sonko di xam ne maanaam daal cong yi leneen lu nekk ci ginnaaw Bougane Gueye ko ak lu mën a xew daal yow mi Sonko war naa mën a xoolaat nii nga xam ne rek noonu la nekkee réew mi kaay dina xam ne moo ñii moom xanaa duñu rus xam ne askanu Sénégal ñu bëgg a dee ay jafe-jafe nga xam ne jotoon nañ ko yóbbu ci assemblée di bëgg yenn ci ay ministres yi nga xam ne jotoon nañoo taqee ci wàllum inondation yi maanaam daal xaalis googee milliards 750 milliards xam ne kayit ga

libération yéenekaay dina xamal ne lu doy waar kay moo xew benn soxna boo xam ne moom la ñuy wax ay dawaat yéenekaay gi duñu xamal ne moom kay la mu def gannaaw ba mu amee ab doom maanaam daal dafa dugg ca dus ba jël doom ji jam ko paaka def ko ci saak génn ak moom sànni ko mu nekk nag lu doy waar.